mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii ci seen chaîne youtube seen acti tv tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi nag ndiki tey dinañ ko door ak journaliste boobee di wuyoo ci turu Pape Alé Niang Pape Alé Niang nag ku ko dégg xam ni ab journaliste bu nekkoon ay at di liggéey foofee ci 2 TV naka noonu nag la fa daal di jugee créer ab propre chaîne YouTube am Pape Alé Niang ku ko dégg xel day dem rek ci koo xamante ni lépp loo xamante ni luy njuuj njaaj la ci réew mi nga xam ne dina am foofee ca parti boo xam ne fa la président fal di maanaam njiitu réew mi dina ko wax wala nag mu génne yenn ci ay information ba tax na moom may di Pape Alé Niang yoon teg na ko loxo li ko yoon tegee loxo nag mooy dañoo jàpp ni rek dafa am information bu mu génne te waru ko woon génne moomee di fi ab journaliste di Pape Alé Niang nangul wax ba tey bi lépp information fan la ko génnee ak kan moo ko jox ba tax na nag moomee di pap Alé dañoo toog jotul li nga xam ne moo di mandat pour wuy ji police police daal dafa débarqué rek daal di koy yóbbu di fàttali rek nag ab benn vidéo yooyu muy faral di def foofee ca chaîne YouTube ndax dañuy faral rek di fàttali rek kéew kee di Pape Alé day daal di faral di def ay vidéo foofee ca ab benn vidéo nag dafa wax ni rek ci Afrique de l'Ouest pays bi nga xam ni moo di Sénégal muy suñu dëkk bi ñu nekk euh, rawatina nag capitalu Ndakaaru capitalu Sénégal di Ndakaaru euh, bokk na ci fi nga xam ni moo gën a gën a gën a cher ci dundin fii ci Afrique de l'Ouest loolu nag la ko ñi ko jàpp daal di jàppee ndax nag jàpp nañ bi lépp information dafa privé te information bi dëgg la fan la ko war a jëlee parce que dafa am yenn ci ay secret yoo xamante ni journaliste amu ci lu ko leer xibaar yi dañ koy daal di wëyal waaye nag dañuy desandi ba tey ci coowal arrestation ki xam ne moo di Pape Alé ndax ki fi nekkoon euh, premier ministre Sénégal di wuyoo si turu Aminata Touré ñi ñi gën ko xam ci Mimi Touré génn na rek foofee ci Facebook ba daal di def ab communiqué ci bi lépp communiqué moom mii di Mimi Touré dafa ni rek suñu démocratie fii ci réew Sénégal tollootul fu ñuy jàppee nit ndax day def liggéeyam moom nag nasaraan la ko bind ne moom dafay exiger li nga xam ne moo di Arrêt immédiat du journaliste Pape Alenia. Notre démocratie a dépassé le stade d'arrestation de journalistes dans l'exercice de sa fonction. li ni mel nag moom lañ leen dëgmal rek laataa ñu koy wax nam ko bindee foofee ca page Facebook am Mimi Touré nag nee na ki nga xam ni moo nekk ci ginnaaw bi lépp jàpp na ko bàyyi ndaxte gisul lenn rek loo xam ni war nañ cee teg loxo ki nga xam ni moo di Pape Alenia. waaye dañuy dem ci wàllub nga xam ni bëri na àdduna bi waaye nag dañuy rek fàttali yéen ci ay dëkk rek ñu gën a yàpp te foofu lañu koy gën a nemmeeku ku dikk nag terrorisme sa xel dina dem fu sori waaye nag fii ci Sénégal dafa dafa amoo ku ñu fa jàpp moom daal ñu ngi ko jàppee foofee ci Kolda moom nag ab polono guinéen la maanaam dafa am euh, même côté Guinée am même tamit côté fa nga xam ni moo di Pologne moom nag ab base daal ab camp la installé fii nii nag ca Kolda def ko ab camp d'entraînement li ni mel nag police bu Kolda ñoo ko daal di teg loxo moom nag fi mu toll temme ma ngi ca loxol yoon yoon nag jotut a génne ab information men lenn rek lu ñu wóor te wër ñu mooy kookee di polonop guinéen boobu noonu jëloon ab base installé ko foofee ca Kolda ab terroriste bu mag la waaye nag bu ñu jógee foofu dañuy desandi ci wàllub sport national daal di jëli li nga xam ni moo di combat bi fi amoon démb dox diggante ki nga xam ne moo di Papa Sow ak ki nga xam ne moo di Siteu Siteu nag ku ko dégg dina xam ne mbër la bu am ginnaaw Papa Sow tamit mbër la moom it bu am ginnaaw bi lépp combat nag tiitaloon na ñenn ñi ndax rek ñi nga xam ne ñoo di super seetu Siteu yi bëri nañ te daay rax ay agression ba tax na démb rek fu ñu toll ñu ngi doon def ay alerte waaye nag comme li ñuy wax y'a plus de peur que de bi lépp combat nag jàll na ci jàmm te dégguñu ci li nga xam ne moo di ba agression ab benn yoon fu journal bi xëyee fësal nekk ne am na ku ñu fa faat ba tax na nag bi lépp combat doxoon ci diggante Papa Sow ak Siteu ndiki dimanche yem ak juróom-ñaari fan ci weeru novembre ci at bu ñu nekk ki la nga xam ne moo di Siteu am na ndam ci kaw Papa gannaaw nag ba mu ko daanee moom mee di Siteu nag dañuy fàttali rek daanu ko par avertissement bi lépp combat rek ab jël la daal di jeexee ñu xuusaat tuuti ci langue politique parce que nag ku xool fu ñu nekk rek deux mille vingt deux tey daal di dëgmal deux mille vingt trois deux mille vingt trois nag na nekk année boo xamante ne dina mouvementé trop incha allah fi ci Sénégal ndax bu ñu jëm dañoo war a amal li nga xam ne moo di élection présidentielle ba tax na nag fan yëpp même ci journal bi ma leen di defal maa ngi di fàttali rek te di leen ni war rek ñenn ci ay candidat yu pare rek pour préparer li nga xam ni ñoo di élection présidentielle yu ñu jëm foofee ci deux loolu nag ki nga Seck génn na rek xamal askanu Sénégal moom mais di Idrissa Seck fa day fas yéene waat ngir rek bokk ci jongante bi nar a am euh, fii ci Sénégal dox ci diggante ku war a jiite bi lépp réewub Sénégal moom nag di Idrissa Seck fësal na rek mi ngi ci wàccaay dañuy daal di desaat ci coowal Pape Alé Niang ginnaaw ba ñu gisee ki nga xam ne moo di patron foofee ca Mediapart ñu gën ko xam ci Plenel moom nag génn na di wanal rek ab fësal bu mu àndal ki Alé moom mee nag di plénel nee na bi lépp jàpp bu ñu jàpp ko kii di journaliste boobee di wuyoo si turu Pape Alé Niang rafetlu ko benn yoon te nag moom tamit mi ngi toog rek di ko bunge te di ànd ak moom tey wax rek ñu daal di bàyyi ki nga xam ne moo di Pape Alé bu ñu fa jógee dañuy dem ci domaine football di xëy rek di fàttali ni rek mbokki internet yi li nga xam ni moo di ligue des champions te rek xëy nañu fësal li nga xam ni moo di huitième de la ligue des champions fi mu tollu temm équipe bu nekk nekk rek war nga xam euh, kan nga war a jóganteel ci ligue des champions boobu ba tax na nag ki nga xam ni moo di Paris Saint-Germain dina tasante ki nga xam ne moo di Bayern Munich Inter dina am ki nga xam ne moo di Porto donc Dortmund Chelsea Francfort Naples AC Milan dina fekk foofee ca huitième de finale ki nga xam ne moo di Nantes AC Milan dina fekk foofee ca huitième de finale ki nga xam ne moo di Tottenham Liverpool Real Madrid Club Bruges Benfica et en fait Leipzig ak City li ni mel nag la ñuy jot a taataan ci ligue des champions yi maanaam yile équipe yu ñu fa lim ñoo war a jongante ci ay match ngir rek mën wëyal loolu nga xam ni moo di ligue des ñu koy xaarandi bu fuy ci Sénégal ndax supporter yi la club bëri nañ fi loolu te nag dañoo nekk ab dëkk boo xamante nekk li ñuy seetaan li nga xam ne moo di ligue des dañ koy seetaan te di ko dund tawteef nag foofee ca Mbàkke ginnaaw ab sokooru sofooru ta sàmmkat moom nag da koo yàpp ba waaj ko yóbbu fa mu bëgg a dem gannaaw nag ba mu àggee moom mee di sofo bi dafa laaj ki nga xam ne moo di borom kam yaboon rek ana paas bi nga xam ne moom moo loo suñu diggantee naka mu laaj ko moom mee nag nekk ab eh, ki nga xam ni moo yëgoon ci bi lépp taxi daal di koy génne li nga xam ne moo di jaas yi pare rek pour dóor ko ki nga xam ne moo di sofo bi tamit nag mu yoreel bi lépp xaalis nag bi lépp sofoor xaalis bu ko war a fay rek war koo yóbbu foo xamante ni fa la jëm xibaar yi nag dinañ ko ndar keppee foofee ca Thiès ginnaaw nag ñaari taalibe kenn ci ñoom daal dafa daal di faat moroomam ba pare daal di koy suul mbokki internet yi tey nag li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata lu woy leen di abonné te bu leen fàtte di bës cloche de notification bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au